mbokki internet yi mbokki salaam 7 tv fo waay ma ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellu siwaat nañ rek ci seen jotaay bi ñu baaxoo ànd yéen saa su ne mu di nuuru nujum mu di xam-xamu biddiw wàllu astrologi ñu leen ci leeralal biddiw yi horoscope yi tabia yi sarax yi couleur yi yëpp rek ñeen koy leeral incha allahu rabbi eh, dikkoon nañ ci eh, fukki horoscope yi ak benn tey ñu war dikk ci horoscope bi ñuy wax sagittaire arab di ko wax alxaws eh, sagittaire lu ci ëpp foo leen fekk dañuy nekk ay nit ñoo xam ne suñu góorgóorloo tuuti rek maanaam ñu kawe la doon suñu góorgóorloo tuuti rek dañuy nekk ñu kawe ñoo xam ne lépp lu ñuy sàkkandoo ak seeni moroom suñ boroom mën leen koo njëkk a may waaye nag seen problème mooy dañuy gaaw a décourager dañuy dugg ci mbir sottiwul rek ñi daal di décourager ci lu gaaw gaaw moo tax lu cëpp seeni mbir nam war a demee du demee noonu ñaareel bi it commerce baax na ci moom lool moom sagittaire maanaam sagittaire moom buy def commerce bu doxut ba jaaxal ko rek na xam ne am na leneen lu ko gàllankoor ndax doomu aadama day am gàllankoor benn cet mën na na ci yow gàllankoor la liggéey mën na na ci yow gàllankoor la ak yeneen ak yeneen kon liy gàllankoor doomu aadama dafa bari ndax mën nga yëngu ci mbir sax mbir moomu nekk sa mbir nga war cee mën a am lu bari am lu la gàllankoor ba mënoo ci am dara waaye borom sagittaire moom buy def commerce bu ci gisul boppam rek ndax xam ne maanaam am na lu ko gàllankoor waaye commerce moom mbiram la baax na ci moom lool. feebaram lu ci ëpp feebaru jàmm la lay wax maanaam feebaram feebaru jàmm la maanaam mën na feebar feebar bu mitt ba doy waar bañ yaakaar ne day faatu mu jékki-jékki ne sojjot jóg wala mu koy wéyaale du ko teree dox ay soxlaam moo tax mu ne feebaram feebaru jàmm la. Mhm. daf koy digal bu dee ci côté njaay mi nag maanaam bu fekkee ne dafay def njaay même bu jaayul sax aay bii may wax dafa baax ci borom Sagittaire torop torop eh, day bind wala xadd karram naa bani aadama ba ca cent 1111 la koy bind mu wut parfum bi ñuy wax kaafin kaaf def ko ci sangu ci 21 jours waaye chaque at juma da koy tëbal du ko sangu te suba it la koy sangoo du ko sangoo ngoon du ko sangoo guddi aaya bi ma wax nag soo bëggee xam fi mu nekk mi ngi nekk sootu Israël aaya 69 70 maanaam suura 17 ñi dimbale ma ci nag ma kenn woowaat di ma laajte wàllu aaya bi ndax leeral naa ko ba mu leer nañ eh, képp kuñ ci waat din ko laaj it dama naa la demal ci video yi seetaan ko rek ñi jàppaleen ci incha allah kon daf koy digal rek maanaam borom Sagittaire nay sarxe mburu bisub alxames baax na ci moom lool na koy sarxe incha allah kon loolu ab tënk la woon rek ci horoscope bi ñuy wax sagittaire donte waxoon naa ne horoscope bu ne du ñu leeral lépp lépp horoscope bu ne tuuti lañ ciy laal bu doon junni maanaam liñ ciy laal du mat sax téeméer ndax waxoon naa ne am na lu ko waral moo tax ñu ci wax tuuti nii rek incha allah di leen ñaanal jàmm salaam xéewal ak sutura yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf.